yéen a kaay gi nee na niki démb ak tey bëccëg la boo xam ne askanu Sénégal daj nañu ci loo xam ne mburu daju ko ca puura ndax secteur bii nga xam ne moo jëm ci wàllum transport ñi koy xëy di ko jëfandikoo ñoo bëri yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy élèves yi ak commerçant yi ba si ñi nga xam ne maanaam ñoo feebar war a jëri ay rendez-vous ñooñu ñëpp ñoo si dund ay jafe-jafe yéen a kaay gi nag nee na le malheur des uns fait le bonheur des autres loole nag mooy ay woo gis jàmmiwaay la ndax ñi nga xam ne ñoo yor seeni cek-cek ak ñi nga xam ne ñoo yor seeni saret ñoom waxuñu lenn ndax ñoom bëccëgub démb bi neex na si ñoom ndax client yi nga xam ne ñoom lañ doon yàpp am na foo xam ne 4000 francs ngay fay ci cag-cag doo ko mën a dem cag yi ak borom chari yi bëgguñu gerew bi jeex yéen kaay gi du l'observateur na gerew bi nga xam ne transporteurs yi na ko loo ci mën di dégg économie locale bi daan na paralysé maanaam daan nërmelo ay milliards yi milliards yi milliards la si Sénégal di ñàkk yéen kaay gi de laas nee na njaw ma ngay wóy di jëm ci wàllum waxtaan wi négociation yi tey jii danañu ko daal di continuer waat transporteurs yi ñoom nag nee nañu dañoo bëgg état bu Sénégal wax lu mel ni mi midi ñu doog a dakkal li nga xam ne mooy grève bi yéen kaay gi di la Tribune nee na élèves yeeg étudiants yi ak ñu feebar ak commerçant yi dañ nañu musiba yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lii nga xam ne mooy secteur transport maanaam secteur la boo xam ne jafe-jafe moo bëri ndax ñi nga xam ne ñoom moom seeni oto ñu leen di woowee ay transporteur ñoom dañuy exploiter ñi nga xam ne ñooy chauffeurs yi ba pare salaire yi nga xam ne moom lañ leen di fay baaxu la bëri na ci ay oto yoo xam ne dañoo màggat ba maara day tali ñi nga xam ne ñooy jël oto yi maanaam client yi ñoom tim ay jafe-jafe yi nen la ñuy boo ci boole nag jafe-jafe yi nga xam ne chauffeur yi kaw tali ak takk der yi mu nekk secteur boo xam ne secteur la à problème yéen a kaay gii di Walf Fadjri bàyyi mbir moomee wax ci njiitu réew mi di président Macky Sall ak jamono jii daal dafa mel ni maa ngi woote jàmm maanaam dafa mel ni ku bëgg apaisement ci mbiri Khalifa Sall Karim Wade mi nga xam ne suliwaat na ko di wax waxu amnistie ak nag Barthélémy Dias mi nga xam loolu lépp ab coup de bluff la boo xam ne Macky Sall dafay wane ne dafa bëgg apaisement fekk loolee dafa bëgg a tuur la ndam gaay yi yéen a kaay gi du l'observateur xëy dañu xibaar naan ñu train express régional bi nga xam ne njiitu réew mi di Macky Sall waxoon na ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre la train express régional di commencé daw wax jooje Macky Sall génnaat na sa génnaat na sa ba set wecc nee na 24 décembre train express régional munta daw yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu Barthélémy Diaz la ñu ko waroon a àtte waaye mbir mi ko dàq sax ba ñaari fan ci weeru mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom doomu Jean Paul Dias bi na lii projet politique la ñu xëy fekk ko ci Vox Populi daan nay wax ne 2 mars dafay fekk ma nekk maire bu Dakar te ñu convoqué maire bu Dakar tribunal loole nag baaxul ci Sénégal yéen kaay gi de la Quotidien nee na union nationale des pêcheurs maanaam kuréel gi nga xam ne moo ëmb nappkat yi ñoom nag mer nañu ba maara détaal yi ndax nee nañu Aliou Ndoye mi nga xam ne moom la ñu denk ministère boobee dafa yàq ministère bi ñu denk wàllum pêche moom Aliou Ndoye daf koo yàq te jamono ji jot na sëkk ak barke Macky Sall dàq Aliou Ndoye ba pare nag ñu audité ko loole nag kuréel gi ëmb pêcheurs yu Sénégal ñoom ñoo ko xamle ma ngi ci yéen a kaay gii de Le Quotidien yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fay Union nationale des consommateurs du Sénégal ñoom nag ñoo ngi woon njiitu réew mi di président Macky Sall mu wax ci giraawaali gi nga xam ne am na ci mboolem loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir tabax ndax nee nañu Macky Sall ciment bi cher na lool ndax nee nañu Macky béton bi cher na lool nee nañu Macky fer bi cher na lool yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien ak Vox Populi ñu xëy di ñu xibaar naan ñu Thierno Diallo mi nga xam ne moo filmé woon kilifa bu Y'en a marre Thierno Diallo moomee na ñu ko mu ñibbi loole nag tax na Y'en a marre ñoom mer ñu ba mara détaali ni ki démb jana nañu taskatu xabaar yi nee nañu fukki fan ci weeru décembre danañu amal manifestation ndax nee nañu kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey moo am ci wàllum justice ci réew mi yéene kaay gi dalegsé ko xëy di ñu xibaar naan ñu sakkan caaro yi ay militaire ñoo fa jàpp ab policier defar ko affaire maanaam dañu ko toroxal ba mara détaali mal mëne ko ba pare jël mboolem li nga xam ne yoroon na ko maanaam dañu ko désarmé armée yéen a kaay gi na mbir ma fa mu xewee mooy policier bi dafa ñëw ci kancaar yi doon fa gaare ab oto militaire yi na ko bul fi gaare ca noonee ci la coow jóg militaire yi jàpp policier bi maanaam daal di koy defar bagage xal nañ ko bam na tot yéen a kaay gi di estat xëy di ñu xibaar naan ñu ballon d'or africain soo muy tuule Edouard Mendy du ko jël ndax France football ñoom jamono ji mel nañ lu jéng Edouard Mendy ndax ci balon door bi fanweer yi nga xam ne moom la ñu jël nominé li na Edouard Mendy bokku ca te Mohamed Salah bokk na ci fanweer yooyu